asalaamaaleykum waa Sénégal vidéo bi dama ko def pour expliquer Sénégalais yépp ce qui s'est réellement passé entre Mo Gates Wally Seck Ndiaga Euro parce que wax ji bëri na gaaru Wally yi bëri na waaye ba tey benn Sénégalais mënut a taxaw ne ma nii la problème bi demee man maa leen koy expliquer zo yaa deux ci ginnaaw deux ci ginnaaw le 4 avril 2019 Mo dafa organiser woon benn soirée tuddee ko Independence Day yéen ñëpp da ngeen ko bàyyi xel 2019 4 avril moo ko organise woon New York Wally moo fa waroon a tëgg ba nu waxtaanee ci prix ba juboo benn juge dafa toog Ndiaga Euro toog Mo Gates toog moo gét compte avance jox ko njaga euro njaga signé contrat bi léegi nag gars yi signé contrat ah signé contrat ak nit ki taxul nit ki nekk sa doomu ndey taxul mu nekk sa moroom taxul mu nekk sa frère taxul mu nekk sa mappandoo parce que liggéey la danga ko fay waali dafa fay waali pour waali dem liggéeyal ko mais du xaritam du doomu ndeyam nawloowu ko yaa ngi dégg léegi nag ba loolu amee dafa am lu xew ci diggante bi muy corona dafa ñëw corona bi ba mu ñëwee moom moo arrêté mbir yi ba li nga xamante si nii moom mooy soirée bi Wally Seck waroon a tëgg New York ci at moomu la amul léegi nag moo daan moom garaawul day tëggaat soirée bi am na sax ba léegi ñoo xamante si nii moo gét yoreel na leen seen xaalis te joxugu leen ko ndax dafa waxoon ne da koy tëggaat te diggante bi nag Wally Seck dem na fi Amérique di génn di dem di génn di lijjanti ay business am mu gis ne bu ñëwee Amérique di ko faale bu organisé du fa dem lijjantiwu ko xoolul ay mbërëm parce que du moroomam gars yi nañu waxante dëgg Wally Seck du moroomu moo gën nekkul ne nit kii ah bu la waree tëggal programme rek wala nga invité ko fenn rek wala nga fay ko pour mu liggéey la dafa war a nekk sa xarit wala sa doomu ndey non non du nawleem du ngeen séq loolu la gis nag mu daal di mer ci la woowee njaga oro ne ko programme bi ma naroon na tëggaat tëggaatuma ko dama koy annulé sama xaalis laa soxla mais joxal ma ko ku nekk Sénégal njaga oro daan ko ba nga may jox xaalis bi juste dafa taxaw nga toog ma toog léegi nag man duma ko jox ku nekk Sénégal damay dagg bee ñëw ba Amérique juste bi toogaat nga toog ma compter sa xaalis jox la ndax dama bëgg lu leer lii la ko Ndiaga Euro wax léegi Ndiaga esa bi bërki démb la dem Amérique mu ngi New York Amérique démb woo na moo Gates téléphone woo na moo Gates moo nekk fa di dof doflu yaa ngi dégg vidéo yooyu muy def ma wax mu naan sa seko beeg ay xaalis bi joxal ma ko kii yëpp Ndiaga Euro kenn mësu koo dégg ci ay jaaxaan du ay tappale Ndiaga nekk na ménagère boo xam ne mosoo koo dégg muy coow ci internet bi léegi nag moo dama lay wax benn affaire Waly Seck du la tontu Amady Badiane du la tontu kenn ku bokk ci famille Faramareen du la tontu man boos Gueye Negri man maay wax ak yow expliquer Sénégalais yi ñu comprendre yaa ngi dégg réew nga xamati nga xamoo bopp xamoo sa silib fay naa sa ndey ci tiktok bi fayaat sa ndey ci club house bi dellu fayaat sa ndey ci instagram bi fayaat ak ci youtube bi fayaat sa sax ci whatsapp bi nga ne daal fay nga da ngay ñëw pour ci Wally Seck am bës Wally nga mën a tudd jaar ci di jël wax ju bon di ko teg ci deram di jël wax ju bon di ko teg ci njaga oro tuuti pour yàq ñooñu seen der njaga du wax xol bu rafet la yor dama naan yàlla du ko bind ba pare rek billaahi xol rafet kenn du doo tàppe ci youtube bi ba gis ne njaga oro mi ngi amul mënoo yàq deram Wally Seck mënoo yàq deram waa Sénégal nag yéen laay waxal problème bi nii la demee ba tey nii may waxee yéen njaga euro mi ngi di xaar lu mu jotee moo gét pour jox ko xaalisam mu nekk di def ay vidéo yu ñàkk fayda lu ne mu jël ko teg ko ci njaga euro teg ko ci Wally Seck fii la nekk di saraxu Wally Seck pour mu way ko barki alxuraanul karim bu fekkente ne Wally Seck way moo gën amal na ko intérêt guddi tey gi yàlla bu ma fanaan da ko doon saraxu naan ko dimbali ma ngir yàlla nga ma ba Wally Seck way ko nii la way wi demee Wally Seck amul intérêt amul intérêt di way moo gët fu ko xaalis fekk fa la koy bàyyi sam Sénégal yi teg nañ seen bët dimbali ñu feebar ñi dimbali ñi nga xamante si nii seen loxo jotewul seen digg dimbali ñu feebar ñi ak ñu pauvre ñi loolu lay Wally Seck di liggéey di dox ci social yow lan nga def Sénégal moo lan am nga xaalis du taabul baa doo boo fa jënd ah du école boo fa tabax doy hôpital yoo fa defar dara di rey ak nit ñi wax ay moo gét di waye xaalis fii dugg na fii gét yow Amady Badiane ak Armand Ndiaye fekk kat yi rek bu ndajalee seen salaire yi rek yow yow waaye bu ma yëngal waaye non non dangaa yegg Wally Seck du sa morom du sa frère nawloowu te du sa doomu ndey sénégalais yi nag yéen a tax ma def vidéo bii pour ngeen comprendre affaire bi ni mu demee mais dinaa defaat vidéo saaga ndeyam